quarante wala ñeen fukk wala juróom benn fukki litre dëwlin dëwlin boobu nag su tàngee ba tàng war na mën tàkk bu fekkente ne amul surveillance bi ci war war na mën tàkk ragal naa xaj na mën na am loolu la mais police mën na wax exactement lan la mais ci li ñu gisagul ñun euh, dañuy jàpp ne daal comme fukki marmite ñoo fa nekk ñaari marmite marmite yi tàkk mooy ñaari marmite yi nga xam ne ci la ñu doon saaf jën bi jàpp naa ne daal dëwleenu saaf boobu moom moo tàkk. waaw xam nga safara bi bu tàkkee karo yi nga xamante ne ci la marmite yi tege dañu dañ booy xool ci kaw plafon bi raax bi ñu ci defoon tamit dafay wàcc donc loolu mën nañu wax visiblement man jàpp naa gis naa mais total même. ñëw na fi seen installation c'est impeccable amul dara benn yàqu-yàqu bu mën a jur lakk installation gaz bi ci biir également jàppaguñu ci wala gisaguñu ci dara loo xam ne mën nañu wax ni mën na indi yàq kon euh, li ñu jàpp daal ma wax leen ko léegi xëy na saaf bi ñu doon saaf indi. xam nga guddi good 5 heures du matin ben nit ñaar wala mbolo ñu yuux ñu yuux ne tak. tak yow xamoo sax fan la tak panique mais à ma connaissance pavillon bi fi la dëkk sama njabot fi la dëkk sama jabar samay fi ni étudiant yi ni ñu mais amul fenn fu ma gis ñu ne kii gaañu ak ñoom waaw lakk bi ci waañ bi lay amé côté bi mu fété direction du coup de la gagne leen mais jegeñantul sax ak fi étudiant yi dëkke bien que ci rez-de-chaussée bi la mais côté bi mu fété ak côté étudiant dëkku ci waaw dama né lakk bi bu muy am ci fadiar sé fait effectivement parce que université juróom ben waxtu ci suba si su joté dañuy ndékki fekk na lépp lu étudiants yi war a lekk munu waajal nañu ko donc fii bi muy lakk nee naa la waañ bi rek lakk magasin lakkul fi ñuy lekke lakkul amul fenn fu fi lakk ñaari marmi ci waañ bi ñoom ñoo lakk ko fi def li ñu fi waroon lekk ak li ñu waroon lekk feneen yëpp la ñu boole ci yenn restaurant yi ñu ubbi ko personnel bi fi waroon liggéey ñu delloo leen ci yeneen restaurant yi ñu jàppale ji leen donc li nga xamante ne tamit moom la ñu doon sóor ci benn waañ bi nga xamante ne nii mu ngi nekk Argentin wala self loolu tamit dañ ko yokkaat pour ñi nga xam ne dañ daan lekk fii te foofu la ñu jëm ñu mën leen jël en charge beneen bi su topp tamit jox nañu ndigal sunu sunu ndaw yi nga xam ne ñooy ubbi restaurant yi te ñoom ñooy tëj restaurant yi wax nañu leen bu ñu ko ubbee bu ñu ko tëj fekk étudiant bi mujj lekkul étudiant bi mujj bu ñu ko joxee mu lekk bu leen neexee ñu tëj bu heure bi jotee bu heure bi jotul nañu bàyyi ba dernier étudiant bi te jàpp naa ni ñuy def ci ndékki ñu tëj daanaka heure bi nga xamante ne nii ci lañu mos di tëj tey jii bu neexee yàlla jàpp naa ne aussi dana mën nekk.